la question de, de l'amnistie. Mmh. Bon, ça, je, je, réponds un peu à Birama. Euh, une amnistie, c'est une loi. Elle s'accorde par une loi et une amnistie devrait concerner euh, euh, l'effacement euh, d'un délit pour rétroactivement. lépp loo xam ne defoon nga ko loi bi ne effacé na ko ce sont des faits qu'on amnistie et c'est une loi de l'Assemblée nationale qui doit être à l'origine de l'amnistie alors à différence de la grâce qui est une prérogative du chef de l'État une prérogative constitutionnelle moo am droit de grâce la grâce nag dañ koy laaj ki nga xam ni moo concerné par la grâce daf ko war a demander mm-hmm. soit directement soit le par le biais de ses avocats ou de ses représentants mm-hmm. pour que demander président examiner ko et après libre à lui de l'accorder ou de ne pas l'accorder et la grâce ne joue que pour l'avenir du dem rétroactivement mm-hmm. maanaam tuuxi doonu boo defoon grâce du ko effacer waaye mën na bu fekkee dañ la tëjoon président ne waaji naa ko un an bu fekkee defagul un an nga génn mën na itam ne génne naa la carrément bu ñu la naroon def cinq ans doo doo ko tëdd génn loolu la grâce di def. Mm, mais du effacer mm-hmm. la nga defoon. c'est pour l'avenir. Mm-hmm. waaw amnistie mooy rétroagir même su fekkee jugé guñ la loi d'amnistie mën na intervenir même avant un jugement. Mm. donc pendant que la vous êtes en phase d'instruction mhm. di seet na def nga am deful à charge à décharge loolu yëpp période boobu yëpp mën nañ cee amnistier des faits et à ce moment là rétroactivement lay agir donc lépp loo defoon wala lu ñu la jiiñooñ wala lu ñu euh, njortoon ne def nga ko dootul amati on remet les compteurs à zéro voilà ok